yow sunu boroom fa innahum naka ñoom jullit yi kat wa in asawka bu dee dañu laa mooy yaa ahad yow mii kenn ci sa màgg kattan gi yaa mën a defar asamaaw yaa mën a defar suuf yaa mën a defar géej yaa mën defar jaww yaa mën a defar ngelaw yaa mën a defar ay doj yaa mën a defar ay garab yaa mën a defar njanaaw yi naaw ci kaw asamaaw sépp ak rab yiy fecc ci biir géej gépp yaa mën a defar doomu aadama yaa mën a defar jinne keneen mënu ko kon bu ñu la moyee tamit yow yàlla yow mi man loolu li xaflatin ngir seen ak càggane la lam yu sori ko duñu la bokkaale kenn ndax xam nañ ne yooyu ma lim yëpp kenn mënu ko kudul sa daraja jooju kon ñoom lam yu sori ko bi ka ahat duñu la ndax mboolem yooyu malem keneen mënu ko kurut yow yàlla te ñoom xam nañu loolu wa innahum naka ñoom ñoom nit mu ñoom julit yépp ab daanuhum seeni yaram laa taqdiru attanul kët ala balaika ci balaa yay bàyyi ko fa yow yàlla ah julit yi attanuñ ko kon bu leen ko teg li tax attanuñu ko nag li dox fen ngir lompoñ nga nga xam ne yées xëru daa feeñ dang ca ñoom ñoom jullit yi ñëpp a lompoñ kon nag bu leen teg benn balaa yow sunu boroom xuloobuhum seen biir xoole ya lay sat tamiilu duñu jëng mukk abadaa ba faw ilaa siwaaka jëm ci keneen ku dut yow yàlla aahuna fii ci àddina suma xaddaa topp keroog yowmal xiyaam lakkina ma waaye nag tala susul jawaari seeni cër ñooy sàcc di jëf lu bon af daahuhumoo moo leen sànk li ax bayil ax baahi ba ñuy jëm cee gën a bon cee gën a bon loolu yépp seen ak matadi la waaye bu leen ko jàppe ay sunu boroom falaatu waaxis hum bul jàppe jullit ya bi maa ca la nga xam ni laa yan xosuk buñ ko defee tamit muy seen ak matadi du la wàññi dara yow sunu boroom waxab bi lahumoo yel na nga leen may allazi la nga xam ne laa yen fahuk doo ko jariñoo sa jàmm ju yaatu ji am nga lu ko gën doo ko jariñoo sa wërsëg wu yaatu wi am nga lu ko gën doo ko jariñoo sa ngëneel yu yaatu am nga lu ko gën doo ko jariñoo kon yal na nga leen ca may ci sa xéewal yu yaatu yooyu ndax dooko ko jariñoo ndax am nga lu